mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. mbokk yi sëriñ mu ne mu ngi leen di nuyu. def ngeen na ngeen daan defee. mu ne def ngeen na ngeen daan defee. ñoom itam ñu bëgg a def nañ daan defee. ñu bëgg a def nañ ni ngeen daan defee mooy. ni ngeen daan defee mooy. na ngeen fekkoon seen maam daan dajee gannaaw julli tabaski ak taalibe yi dañ bokk di jàng alxuraan. da ngeen fekkoon seen maam daan dajee. ci gannaaw julub tabaski moom ak taalib yi ñuy dajee da bokk jàng alquran. buñ paree mu waxtaan ak ñoom ci laaskanante ak jamono ja. buñ paree mu waxtaan ak defee nañ ko itam na ngeen ko daan defee rek. ba ko daan defee rek. at bu jot ñeenti kaamil lañ daan jàng. at bu jot ñeenti kaamil lañ daan jàng. ñeenti kaamil yi itam pare na. ñeenti kaamil yi itam pare na. sëñ Yankooba jàng na xanmu bi. sëñ Yankooba jàng na xanmu bi. ak yi ñu ko daan booleet. ak yi ñu ko daan booleet. ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala xat mii nga xam ne xat mii nga xam ne boo ko dee seet ci gàddaay gi boo ko dee seet ci gàddaay gi mooy nekk junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ak ñeent fukk ak juróom bu ne ci milaat bi la bu fekkee ci milaat bi la kon mu ngi mën nekk ñaari junne kon mu ngi nekk ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent xan mi yal yàlla defal ñu ko muy xan moo xam ne bàkkaar bu ñu fekkee rek yàlla def ñu koy jéggal yàlla defal ñu ko muy xan moo xam ne soxla ab xiiw bu mu ñu fekkee rek yàlla def ñu koy fajal tawat bu mu ñu fekkee yàlla saafara ko jaaxle bu mu ñu fekkee yàlla dàqal ñu ko njaboot gi nga xam ne ñoo tasaaroo ci biir réew mi. njaboot gi nga xam ne ñoo tasaaroo ci biir réew mi. ak bitim réew. ak bitim réew. ku ci xëyee bisab tey bii ci jaaxle. xëyee bisab tey bii ci jaaxle. jaaxle googu yéen yàlla dàqal ñu ko dàqal la ko. yàlla dàqal ñu ko dàqal la ko. ku ci xëyee bisab tey bii ci tiis. ku ci xëyee bisab tey bii ci tiis. yooyu yéen yàlla dàqal ñu suñuy tiis dàqal leen seen i tiis. ñu ngi ñaanal njaboot gi ne. baax la xamal njëriñ képp koo xam ne yaa ngi nekk ci lu baax lu la xamal njëriñ yàlla na nga ko doyloo yàlla na ko doyloo ba lu la doy fekk la ca ba lu la doy fekk la ca ñu ngay ngay ñaanal njaboot gi yëpp nekk ci réew mi ak ki nekk ci biti ki ku ci nekk ci lu baax lu la xamal njëriñ képp ko doyloo ba lu la doy fekk la ca ba lu xam ne yaa ngi ci loo xam képp koo xam ne yaa ngi nekk ci loo xam ne xamalul la njëriñ. ku ci nekk ci loo xam ne lor xam na ja. ci nekk ci loo xam ne lor xam na ja. yéen yàlla jëlee la ci ci taar. yéen yàlla jëlee la ci ci loo xam ne xamal na la ci loo xam ne xamal na la njëriñ. te loolu la yàlla na ko doyloo. yàlla na ko doyloo. ba njëriñ fekk la ja. fekk la ja. yàlla bu fi kenn bàyyeekoo di taxawaal. yàlla bu fi kenn bàyyeekoo képp ku bokk ci ñun. képp ku njabootu ci ñun. képp ku njabootu ci ñun. fu mu a ne. fu mu mën a ne. nu mu mën a mel. nu mën a mel. ku mu mën a dox. ku mu mën suñu borom musal ñu ci taxawaalu. yàlla musal ko ci taxawaalu. musal bu ci nekkee. bu ci ci yàlla gaaw a génnee. képp ku njabootu ku njabootu ci ñun. fu mu mën a ne. fu mën a ne. nu mu mën a mel. mën a mel. ku mu mën mën a dox. yàlla suñu borom musal ñu ci taxawaalu. musal ko ci taxawaalu. bu ci nekkee. bu ko ci yàlla gaaw a génnee. yal na ko di génnee. gën yàlla bu fi yaakaar seey. yàlla bu fi yaakaar seey. yàlla bu fi yaakaar seey. yàlla bu fi képp ku ñu jàppee ci moom njëriñ lu ñu xam. képp ku ñu ci moom njëriñ lu ak njëriñ lu ñu xamut. ak lu ñu njëriñ lu feeñ njëriñ lu nëbbu. njëriñ lu feeñ njëriñ lu nëbbu. njëriñal saayir njëriñal baatin. njëriñal baatin. njëriñal xadduna njëriñal laaxira njëriñ loola yal na yàlla defal ñu ci njëriñ. njëriñ loola yal na yàlla defal ñu ci njëriñ. defal ñu ci barke. defal ñu ci barke. moom mi ñu ko jëriñ. moom mi ñu ko jëriñ. yal na yàlla fay ko lu ko xappu. seeni ñaari maam rek lañ nettali noonu. mu ne seeni ñaari maam rek lañ nettali noonu. waaye ñu boole ci bii itam nag. waaye ñu boole ci bii itam nag. lu yëngatu rëy rëy rëy. bu dëppoo ak sunna. bu dëppoo ak sunna. yàlla buñ ci tàbbi. yàlla bu ci suñ koog tàbbi yàlla bu ci suñ koog tàbbi buñ ci tàbbee yal yàlla génne yal nañ ci yàlla génne gën caa rafeti génne mbokk yi ñu leen di nuyu mbokk yi sëriñ mun ne ñu ngi leen di nuyu di toppandoo rek seen maam di toppandoo rek seen maam te mooy da waxal njaboot bi loo xam ne te mooy da waxal njaboot bi lu xam ne buñ fi bàyyeekoo jëriñoo ko buñ fi bàyyeekoo jëriñoo ko tey nag moom li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane mooy mbay mbay tey nag li xam ne moom lañ bëgg a mooy mbay mooy affaire tool yi mooy affaire tool yi yitte gi moom la hitteel ci saayir nga xam ne moom la hitteel ci saayir duñ ci wax ñun ñëpp xam nañ ko duñ ci wax ñun ñëpp xam nañ ko ndax seen maam ndax seen maam dafa waxoon ne xëy liggéey dikki jàng xëy liggéey dikki jàng moom la ñu sant moom la ñu sant mu ne ko ko defut mu ne ko ko defut da nga sàcc da nga sàcc mu ne ma xëy liggéey. mu ne xëy liggéey. boo taxoo liggéey. boo taxoo liggéey. te jànguloo. te jànguloo. loo liggéey. loo liggéey. ñaari jàng yi jël borom ñaari jàng yi jël ko. boo taxoo jàng. boo taxoo jàng. te liggéeyuloo. te liggéeyuloo. noo mën a def danga nga taxawaalu. noo mën a def mu ne taxawaalu nag. mu ne taxawaalu nag. moo di indi sàcc. moo mu ne buñ la sàcc nag. mu ne buñ la sàcc nag. xel daj kuy toj waxande. xel daj mu ne waaye dof yi rek. mu ne waaye dof ñooy toj waxande. waaye ñuy jëlee li jàmbur. ci naxe. ci naxe. ak ci xuruj. ak tas yaakaar. ak tas yaakaar. ñoom ñëpp li ñuy def sàcc la tudd. ñoom ñëpp li ñuy def sàcc te bu fekkee da ngay da ngay jàng da ngay da ngay jàng rek te doo ah, mucc dana jafe de. Ah, amoon na genn góor ci Saalum. amoon na genn góor ci Saalum. dafa amoon benn taale boo xam ne nii eh, dafa dëkkoon ci jeneen daara. dafa amoon benn taale boo xam ne dafa dëkkoon ci jeneen daara. daan faral di jaar ci moom da ko siyaare. daan faral di jaar ci moom da ko siyaare. melokaan wu rafet lool. melokaan wu rafet lool. yére yi rafet lool. yére yi rafet lool. benn bis mu jaar ci góor googu. benn bis mu jaar ci góor googu. tawatal ko boppam ci xalal. tawatal ko boppam ci xalal. xàbb ko. xàbb ko. góor gi abal ko. góor gi abal ko. ba mu demee ba yàgg te dikkut. ba mu demee ba yàgg góor gi laajte ko. góor gi laajte ko. wax itam li nga xam ne moom lañ seqoon. wax itam li njaboot gi wax ko ne ko. maam. maam. kooku du la fay de. kooku du la fay de. mu ne fa ma sàcc. mu ne fa <laughs> mu ne fa ma sàcc. kooku moo xam ne. kooku moo xam ne. Eh, sàcc du toj waxande du toj waxande rek. yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama nee na akab jullit mu ne bu jëmbatee am njëmbat bu jëmbatee am njëmbat wala mu bay am mbay wala mu bay am mbay am picc lekk ja am picc lekk ca wala ak nit lekk ca wala ak nit lekk ca wala bahiima lekk ca wala bahiima lekk ca lañ lekk noonu yëpp lañ lekk noonu yëpp sarax laay doon sarax laay doon seen maam daan wax ne mu ne seen maam daf daan wax ne bis boo jógee ne maa ngi jàppi tool. bis boo jógee ne maa ngi jàppi tool. semaine bi nga xam ne nii moom nga njëkk dóor. semaine bi nga xam ne moom ngaa njëkk a dóor. boo déggoon ñi da wax ndokk ndokk ndokk yëpp. boo déggoon ñi da wax ndokk ndokk ndokk yëpp. kon da ngay bàyyi ndax da nga naan ñii mënuñoo xaj ci tool bi. kon da ngay bàyyi sax ndax da nga naan ñii mënuñoo xaj ci tool bi. maag ñoom maag ñoom. ndax fa tabaarakallaa bëri njëriñ lool. ndax fa tabaarakallaa bari njëriñ lool. li janax yi da lekk. li ci janax yi da lekk. li jaxar yi lekk li jaxar yi lekk li jur gee lekk li jur gee lekk yooyu yëpp sarax la yooyu yëpp comme ni ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxee comme ni ko yonent wa sallam waxee waa mu ne mooy suñ mag ñi jiitu ña danañ xoomal xoomal ba seen xoomal xàgg ci dayoo danañ da xoomal ba seen xoomal xàgg ci dayoo waaye du leen tere da bay nag waaye du leen tere da bay nag ndax buñ bayee ndax buñ bayee li nga xam ne moo cay lekk te duñ ko yëg. li nga xam ne moo cay lekk te duñ ko yëg. loolu rek doy na leen. loolu rek doy na leen. rawatina la ñuy lekk. rawatina la ñuy. ñi cay lekk. rawatina lekk. te ñi du ko yëg. te ñi du ko yëg. Abu Ayyub al-Ansari. ne Abu lan al yi mu ne yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam nee na ku jëmbat am njëmbat mu ne yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam nee na ku jëmbat am njëmbat borom bi tabaraka wa taala dana ko jox borom bi tabaraka wa taala dana ko jox ci tiyaabo ci tiyaabo lu toll ni mboolem njëmbat moomale lu toll ni mboolem njëmbat moomale meññen ma mooy sax meññen ma mooy sax meññen ma caay bayee ko meññen ma caay bayee ko ku jëmbat am njëmbat ku jëmbat am njëmbat yàlla dana ko jox ci tiyaabo. yàlla dana ko jox ci tiyaabo. lu toll nii. lu toll nii. njëmban moomale. njëmban moomale. bépp meññeen mu ci bàyyeekoo rek. bépp meññeen mu ci ko ko jëriñoo rek. mu nekkal ko mu nekkal ko tiyaabo. saxaaba bu ñuy wax jaabir ibn abdillah. saxaaba bu ñuy wax jaabir ibn abdillah. mu ne yonente bi sala mu ne maa min illaa kaana maa ukila minhu lahu sadaqatan wa ma surika minhu lahu sadaqatun mu ne ja bu ñoo jaabir ibn abdullahi mu ne mu ne sahaaba bu ñoo ak ab jullit ak ab jullit bu jëmbatee am njëmbat bu jëmbatee am njëmbat luñ ca lekk rek luñ ca lekk rek ak ko lekk rek ak ko lekk rek ak nu mu ko lekkee rek ak ko lekkee rek sadaxam la sadaxam la buñ ca sàccee buñ ca sàccee moom yëgut tinu moom yëgut tinut sàcc ba sàcc na. sàcc ba sàcc na. boobu itam saraxam la. boobu itam saraxam la. bu ko yàlla dencal. bu ko yàlla dencal. wa qaala nabiyu utlubu risqa fi qabaayal ardi. yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon na ne. mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon na ne. warsak. warsak. danañ ko sàkku ci biir suuf si. danañ ko sàkku ci biir suuf si. ni ñu koy sàkkoo ci biir suuf si nag. ni ñu koy ci biir suuf si nag. mbay moo gaaw. mbay moo ca gaaw. mooy mbay. mooy mbay. ak jëmbat. ak jëmbat. boo dee bay. boo dee bay. yaa ngi sàkk warsak ci suuf si. yaa ngi sàkk warsak ci suuf si. boo dee jëmbat. boo dee yaa ngi sàkk warsak ci si. yaa ci suuf ما من زارع يزرع زرعا يقرأ قوله تعالى أفرأيتم ما ترسون أنتم تصنعونه أم نحن الصالحون بل الله الصالح اللهم صل على سيدنا محمد وسقنا ثمره وطفحنا ضرره وجعلنا لنهمتك من الساكرين إلا رفع الله عن سره جميع الآفات Qurtubi moom du ci am ci waxal ñu mbay ni mu baaxee. mu ne bi moom du am ci waxal ñu rek ni mbay baaxee. moom kay daf ñuy waxal sax. moom kay daf ñuy waxal sax. li nga xam ne soo ko waxee yàlla wattul sa tool bi. li nga xam ne soo ko waxee yàlla wattul la sa tool bi. ba yi nga xam ne dañuy yàq gàncax ba du sotti yëpp. ba yi nga xam ne dañuy yàq gàncax ba du sotti yëpp. yëpp yàlla musal la ci. yëpp yàlla musal la ci. mu ne dégg na ci ñu xam ne ñu xam dëgër laay lañ ci xam-xam. mu ne moom Qurtubi dégg na ci ñu xam ne ñu xam dëgër laay lañ ci laay lañ ci xam-xam. boo demee de tàmbali jiñ ji. boo demee de tàmbali jiñ ji. nga wax afaraytum maa a antum tasna'uunahu am nahnu saari'uun teg ci ne. nga wax afaraytum maa tansuuna afaraytum maa tansuuna antum tasna'uunahu am nahnu saari'uun teg ci ne. balillaahu saari'u. balillaahu saari'u. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا ثمره وارزقنا ثمره وادفع عنا ضرره وادفع عنا ضرره واجعلنا لنعمتك واجعلنا لنعمتك من الساكرين من الساكرين dañ ko baamtu ñetti yoon ndax mu ne dañ ko baamtu ñetti yoon ndax amirul muminina mansour amirul muminina mansour yàlla mayoon na ko secrétaire boo xam ne. yàlla mayoon na ko secrétaire boo xam ne. lu mu dégg benn yoon mu mokkal ko. lu mu dégg benn yoon mu mokkal ko. yàlla may ko secrétaire boo xam ne. yàlla may ko secrétaire boo lu mu dégg ñaari yoon mu mokkal ko. mu dégg ñaari yoon mu mokkal ko. de moom Mansoor ci boppam. moom may. moom la yàlla may. lu mu yoon mokkal ko. lu mu dégg benn yoon mokkal ko. yàlla may ko si boo xam ne. yàlla may si calteer boo xam ne. lu mu dégg ñaari yoon mokkal ko. lu mu dégg yàlla may ko si calteer boo xam ne. yàlla may ko si calteer lu mu dégg ñetti yoon mokkal ko. lu mu léegi nag moom daane xiiw lañ ko daan wax. léegi nag moom daane xiiw lañ ko daan wax. li may mayee daal li ci gën a bëri. li may mayee daal li ci gën a bari mooy mooy fifteen. léegi nag mu ne nag woykat yi nag. léegi nag mu ne woykat yi nag. yéen da ngeen a jël wayu yàgg yi. yéen da ngeen a jël wayu yàgg yi. di dem ci kilifa ne ko yow lañ ko taggee. di dem ci kilifa ne ko yow lañ ko taggee. ku fi ñëw indi fii benn wayu woo xam ne bii nii mokk la ma ko. ku fi indi wayu woo xam ne nii mokk la ma ko. loo bëgg rek dinaa la ko jox. loo bëgg rek danaa la ko jox. fekkee sama secrétaire bi mokkalu ko. fekkee sama secrétaire bi it mokkalut ko. fekkee sama secrétaire bi mokkalu ko. fekk sama beneen secrétaire bi mokkalut ko. léegi boo ñëwee. léegi boo ñëwee. boo jooroo wenn yoon. boo jooroo wenn yoon. Mansoor mokkal na. Mansoor mokkal na. mu ne bii de. mu ne bii de. xasida bii. xasida bii. ba ma ko xamee yàgg na de. ba ma yàgg na de. déglul. déglul. mu jaat ci ba xasida ba jeex. mu jaat ci sikalteer bi nga xam ne bu xamee ñaari bu déggee ñaari yoon. bi nga xam ne déggee ñaari yoon. mokkal. mokkal. kooku mokkal mu ne mokkal na ko. kii sax mokkal na ko. su ko defee kooku jàng. su ko defee kooku jàng. mu ne ñetti yoon. mu mu joxoñ beneen secrétaire bi. bi. itam ne ko kii itam mokkal na ko. su ko defee kooku jàng. su ko defee kooku jàng. mu ne demal ñibbi. ko demal ñibbi. doo fi jëlee dara. doo fi jëlee jàmbur nga fi indi. wuyu jàmbur nga benn araab yi bu nekk ci àll ba. yi bu nekk ci àll ba. léegi léegi nag mu ne ko fi indi xasida boo xam ne yow yaa ko wéyal sa bopp léegi mu ne ko fi indi xasida boo xam ne yow yaa ko wéyal sa bopp man mokkalu ma ko keneen mokkalu ko man mokkalu ma ko keneen mokkalut ko ko bind loo ko bind loolu la ñuy wurus loolu la ñuy peese ak wurus su ko defee ñu jox la ko su ko defee ñu jox la ko benn xaraab yi boo xam ne mu ngi ci digg àll ba benn xaraab yi boo xam ne mu ngi ci digg àll ba dégg ko dégg ko mu ne dana ma jox de dana ma jox de dana ma jox de dana ma jox de mu woy xasida boo xam ne baat yaa ngi tumaranke tumaranke ba nga xam ne mu woy xam ne baat yaa ngi tumaranke tumaranke ba mu jël benn xeer woo xam ne ni wu ratax la bind ko mu bind ko ja mu dal na fexe baax si ci amirul moominin mu dal na fexe nag baax wax ko lii tànkam wax ko lii tànkam mu ne ko waaw waaye nag leen yàq yéen woykat yi mu ne ko waaw yéen leen yàq yéen woykat yi da ngeen a indi nit woy ni yéen a ko woy te fekk woyu leen ba woyu jàmbur da na ne yéen ko woy te fekk woyu jàmbur la waaw waaye indi nag woyal ma dégg waaw woyal ma dégg mu woy ba daaneel mu woy ba daaneel Mansour mënu ko baamu Mansour mënu koy baamu secrétaire bi nag boo dégg bu kii dégg ñaari yoon kii dégg ñaari yoon moom dégg gut moom dégg gut kii dégg ñetti yoon kii dégg ñetti yoon moom itam dégg gut moom dégg gut boo ko defee amul menn pexe mu may def mu ko defee amul menn pexe mu may def mu ne ko waa indi fi nga ko bind mu ne ko waa indi fi nga ko bind mu génnee gafaka gi mu génnee gafaka gi réew ma ma dëkk réew ma ma dëkk amul xalawa amul xalawa amul kayit amul kayit ñun lépp lu ñuy bind ñun lépp lu ñuy bind ci xeer lañ koy bind ci xeer lañ koy bind génne xeer xeer yi mu yónnee nañ ko peese ci wurus jox ko ko. mu yónnee nañ ko peese ci wurus jox ko ko. gàngoor ak xalifa bi wax ko ne ko. gàngoor ak xalifa bi wax ko ne ko. sa pexe mi. sa pexe mi. si sa pexe mi weeru na. sa pexe mi weeru na. booy wa nga bàyyi lii de. booy wa nga bàyyi lii de. <laughs> léegi kon dañ koy jàng ñetti yoon ndax. mu ne kon dañ koy jàng ñetti yoon ndax. ndax de yàlla ma am ku mel ni eh, secrétaire am ñetteel bi. ndax de yàlla am ku mel ni secrétaire am ñetteel bi. ba mokkal ko ba mokkal ko. أفرأيتم ما تهرسون أنتم تصنعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تهرسون أنتم تصرعونه أم نحن الزارعون بل الله الزارع بل الله الزارع اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا ثمره وارزقنا ثمره وادفع عنا درره وادفع عنا درره واجعلنا واجعلنا لنهمتك لنهمتك من الشاكرين من الشاكرين أفرأيتم ما تهرسون أفرأيتم ما تهرسون أنتم تسرحونه أنتم تسرحونه أم نحن السارعون أم نحن السارعون balillahu saariho balillahu saariho allahuma salli ala sayidina muhammadin allahuma salli ala sayidina muhammadin warsuqna samarahu warsuqna samarahu watfahanna dararahu watfahanna dararahu wajhalna li nihmatika wajhalna li nihmatika min asakirina afaraitum ma tahrusuna afaraitum ma tahrusuna أنتم تصرحونه أنتم تصرحونه أم نحن السارحون أم نحن السارحون balillahu saariho balillahu saariho allahuma salli ala sayidina muhammadin allahuma salli ala sayidina muhammadin warsuqna samarahu warsuqna samarahu وادفع عنا ضرره وادفع عنا ضرره واجعلنا لنهمتك من الساكرين واجعلنا لنهمتك من الساكرين امنا كيرين في جهون تزارو نجي لوخو ñen من امنا كيرين في جهون تزارو نجي لوخو ñen ñaan gi nek ja ñaan gi nek ja am na lu tuuti rek lu ñu wutee. am na lu tuuti rek lu ñu wutee. waaye bu ñu duggee ci faram-fàccee. waaye bu ñu duggee ci faram-fàccee. damay lantal damay damay jaxase ki ko bëgg a mokkal ci ñetti yoon. dafay jaxase ki ko bëgg a mokkal ci ñetti yoon. waaye yëpp ci xurtu bi lañ ko jëlee. waaye yëpp ci xurtu bi lañ ko jëlee. Abdullahi ibnu Salaam. mu ne Abdullahi ibnu Salaam. mu ne laata da xiraasa ardika. mu ne laata da. xiraasa ardika wayen xalajat dajjaalu. mu ne laata laata sax xiraa satar ardika ah, wayin xarajat dajaalu mu ne boo déggoon ñu ne dajaal génn na ñëpp daw nañ da ko waaw mu ne boo déggoon ñu génn na ñëpp daw pour mucc ca ñëpp daw ngir seetaani ko ñépp daw ngir seetaani ko ñëpp daw ngir xumbeel ma ñëpp daw ngir xumbeel ma fekk yaa ngi téye am njëmbat moo bëgg a jëmbat. fekk yaa ngi téye am njëmbat moo bëgg jëmbat. jëmbatal ba pare. jëmbatal ba pare. looy def nga door koy def. looy def nga door koy def. wa qila li Usmaan Usmaan ibn Affaan dañ ko fekk mu ngay jëmbat. mu ne ah, Usmaan mag mu toll nii dañ ko fekk muy jëmbat ñu ne ko ah Usmaan mag mu toll nii yow da jëmbat. فقال لأن تقوم الساعة وأنا من المصلحين خير من أن توافيني وأنا من المفسدين mu ne bis penc taxaw. mu ne bis penc taxaw. fekk ma ma bokk ci ñiy defar. fekk ma ma bokk ci ñiy defar. moo ma gënal bis penc dikk. moo ma gënal bis penc dikk. fekk man ma nekk ma bokk ci ñiy yàq. fekk man ma bokk ci ñiy yàq. ndax ñi nga xam ne ñii ne ñoo de ñoo nit ñi di jëriñoo. ndax ñi nga xam ne ñoo de jëmbat nit ñi di jëriñoo. defarkat yi. ñoo doon defarkat yi. ñi nga xam ne nag ñi xam ne ñoo jëmbatoon. ñi nga xam ne ñoo jëmbatoon. loolu la ñuy jëriñoo waaye ñoom duñ jëmbat. loolu la ñuy jëriñoo waaye ñoom duñ jëmbat. ñoo di yàqkat yi. ñoo di yàqkat yi. wa naqala al-Xalaa'iyu radiyallaahu anhu fi tafsiiri suurati Yuusufa anna Allaaha tabaaraka wa taala anzala alaa Muusaa alfu malakin يباركون فيه وفي حفصه فاستوى أنزل الله ثلاثة ثلاثة آلاف ملك يباركون في سبه أي في الذي يتفرغ منه فإن حبة قد تخرج بثلاث سنابل فأكثر كما قال تعالى سنوان وخير سنوان فسنوان hiya shajaratu allati yakunu laha aslaani fa aksaru fi saana asaaluhu anzalallahu tabaraka wa taala sittata alaafi malakin yubaarikuuna fi habbihi wa yuhalliluuna rabbal izzati wa yukabbiruunahu walan yuukala minhu shay'un hatta yanzila allahu tabaraka wa taala sittata alaafi malakin yubaarikuuna fi aklihi xalaa yoo ba muy firi alquran ba si ci suuratu yusufa mu ne xalaa yoo ba muy firi alquran ba si ci suuratu yusufa mu ne borom bi tabaraka wa taala wàcce woon na ci yonent yàlla Moussa kaddu kaddu yi mu ne borom bi tabaraka wa taala wàcce woon na ci yonent yàlla Moussa kaddu yi noonu na ko bépp tool boo xam ne bii ne ñu ngi koy bay noonu na ko bépp tool boo xam ne ñu ngi koy bay ak ku ko bayee fu mu ko mën a bayee ak ku koy bayee ak fu mu koy mën a bayee borom bi tabaraka wa taala dana wàccee ci tool boobale borom bi tabaraka wa taala dana wàccee ci tool boobale junni ci junney malaaka junney malaaka seen barke seen barke ak def la leen borom bi tabaaraka wa taala sant ak def la leen borom bi tabaaraka wa taala sant ci la gàncax gi saxee ci la gàncax gi saxee bu demee ba taxaw bu demee ba taxaw ba léegi mu taxaw nekk gàncax. ba léegi mu taxaw nekk gàncax. borom bi tabaaraka wa taala ci yëpp. borom bi tabaaraka wa taala dellu yónneewaat ci mbayteef yi yëpp. fu ndox xàggoon. fu ndox xàggoon. malaaka yi dañ fa àgg. malaaka yi dañ fa àgg. ñetti te ñetti junney malaaka. ñetti junney malaaka. ñooy seen loxo. yàlla jaarale ci seen loxo. gàncax ga. gàncax ga. ci lay xamee bànqaas. ci lay xamee bànqaas. ci ci lay xamee xob. lépp ci lay xamee itam ay góob. ci lay yi tam ay gub mu ne benn pepp képp. mu ne benn pepp képp. yow jiwoon nga ko. yow jiwoon nga ko. ba saxee. ba mu saxee. def benn gattax. def benn gattax. gattax boobale. gattax boobale. def def ñetti ay ñetti càq wala lu ko ëpp. def ñetti càq wala lu ko ëpp. gattax bu ne. gattax bu ne. càq bu ne. càq bu ne. indigu bu boppam. indigu bu boppam. te benn pepp la te benn pepp la mu ne alxuraan wax na ko. mu ne alxuraan wax na ko. sinwaanin. sinwaanin. wa xayri sinwaanin. wa xayri sinwaanin. mu ne gàncax bu jógee. mu am benn poq rek. day benn pol benn gattax rek. benn gattax rek. waaye danaa itam. waaye danaa am yoo xam ne ay gattax laay doon. yoo xam ne ay gattax laay doon. yi xam ne bii nii. yi xam ne bii nii. dafa am ñaari bànqaas. dafa am ñaari bànqaas. ak lu ko gën a bëri. ak lu ko gën a bëri. moom la ñuy wax ne. moom la ñuy wax ne. su waanuun. sinu waanuun. ay bokk. ay bokk. ay bokk. ay bokk. waaw su ko defee nag boo xam ne tool booba la nga xam ne borom bi tabaraka wa ko jiyee dafa yónnee woon junni malaaka. su ko defee mbay mi yëpp la di. su ko tool boobu wala mbay mi yëpp nga xam ne bañ ko jiyee dafa borom bi tabaraka wa taala yónnee woon junni saxee ba nekk gàncax gu taxaw mu yónnee fa ñetti junney malaayka ba mu saxee ba nekk gàncax gu taxaw mu yónnee fa ñetti junney malaayka léegi nag bu ñu demee ba xam ne góob ko jot na léegi nag bu ñu demee ba xam ne góob ko jot na ak fu mbayteef nekk rek ci àdduna bi ak fu mbayteef nekk ci àdduna bi yàlla yónnee ci juróom yàlla yónnee fa juróom benni téeméeri malaayka ñoom juróom benni téeméeri malaayka juróom benni ñoom ñooñu ñoom ñooñu ñooy topp mbayteef moomu. ñooy topp mbayteef moomu. di sabbal yàlla. di sabbal yàlla. da ko màggal. da ko màggal. da ko hormaal. ba yàlla sotti ci barke. ba yàlla sotti ci barke. sittatu alaafi. juróom benn juróom benn junneey malaayika. juróom benn junneey malaayika. mu ne boo xamee ne góob ko jot na mu ne boo xamee ne góob ko jot na borom bi tabaraka wa taala wàccee ci mbayteef mi yëpp borom bi tabaraka wa taala wàccee ci mbayteef mi yëpp fu mbayteef nekk rek fu mbayteef nekk rek balaa mooy sotti li may wax nii dana nekk juróom benn junney malaayka juróom benn junney malaayka junne yooyu nag juróom benn junne yooyu ñooy tiim mbayteef moomu da ci ñaan barke da ci ñaan barke da sàbbal borom bi da sàbbal borom bi da ko kàbbar da ko kàbbar da ko màggal da ko màggal balaa mooy ñor xomm xomm ba boo dikkee rek lekk balaa mooy ñor xomm xomm ba boo dikkee rek lekk borom bi tabaaraka wa taala dana wàccee xat borom bi tabaaraka wa taala wàccee xaat ci ay malaayka fukki ñu ñaan ñu def ca barke ñu def ca barke ñoom ñooñu ñoom ñooñu seen seen loxo la yàlla jaarale barkeem mbay mi ci seen loxo la yàlla jaarale barkeem mbay mi su ko defee loo ci am lu mu tuuti tuuti soo ko defee loo ci am lu mu tuuti tuuti mu amal la njëriñ mu amal la njëriñ kon nee na kon nee na soo jixee soo jixee yàlla yebal junney malaaka yàlla yebal junney malaayika boo xamee gàncax boo xamee gàncax ñetti junney malaaka mu yebal ñetti junney malaayika bu demee ba taxaw. bu demee ba taxaw. waaye góob góob jot na waaye góobaguloo. góob jot na waaye góobaguloo. juróom benni junney malaayika. mu xebal juróom benni junney malaayika. ñor na xopp. ñor na xomm. jëriñu rek moo des. jëriñu rek moo des. fukki junney malaaka mu yónnee fukki junney malaayika yii yëpp ci mbay mi la ñuy liggéey yii mbay mi la ñuy liggéey baykat bi baykat bi moom lii yëpp seetaale wu ko moom lii yëpp seetaale ko waaw nett li barki démb démb mu ne moom la doon nett li démb dafa am ko xam ne dafa foogoon ne mu ñaanal dafa am ko xam ne fa foogoon ne koy ñaanal mu ne mu ne ma yal na la engrais yomb mu ne ko yal na la engrais yomb yal na la urée yomb yal na la urée yomb mu ne ko tee ñaanam li ma bëgg. mu ne ko tee nga ñaanam li ma bëgg. ba nawet bu barke. nawet bu barke. waaw ñaanama nawet bu barke rek. ñaanama nawet bu barke rek. <laughs> xam koo xamoon ne malaaka yi yëpp lii la ñuy liggéey. koo xamoon ne malaaka yi yëpp lii la ñuy liggéey. <laughs> yal na ma yal engrais yomb yal na la mu ne ko ñaanal ma li ma bëgg. mu li ma bëgg. nawet bu barke. nawet bu barke. loolu laa bëgg. koo xamul lu toll ni malaaka yi yëpp. mu ne koo xamul ne lu toll ni malaaka yi yëpp. ñoom ñu ngi liggéey ci mbaytee bi. ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ci mbaytee bi. ansalallahu asa wajal ala daawuda alayhi salaatu wasalaam fi sabuuri innani ana allahu دنيا وجعلت قوامها القمح والسهيرة ولم أخلق شيئا أعص علي منهما ومن أفسد منها منهما شيئا فقد برئت منه ذمتي mais borom bi tabaraka wa taala wàcce woon na ci daawara yonent yàlla daawara ci sëboor ne ko mu ne borom bi tabaraka wa taala wàcce woon na ci yonent yàlla daawara ci sëboor ne ko man mii man mii maay borom bi maay borom bi loo fi gis loo fi gis maa de boromam maa de boromam àddina mii maa ko bind àddina mii maa ko bind bi ma ko bindee bi ma ko bindee laa def xam-xa laa def xam-xa ak saxeer ak saxeer ñu ne mu ne dundab àddina bi. mu dund dundab àddina bi. boo ci bëggoon noppal da nga naan. boo ci bëggoon noppal da nga naan. laa def dund. laa def dund. ndax dund boo ko waxee. ndax dund boo ko waxee. dugal nga suuna. dugal nga suuna. dugal nga mboq. dugal nga mboq. dugal ceeb. dugal nga ceeb. yooyu lu mu ci mënta doon. yooyu lu mu ci mënta doon. moom la ñuy dundee. moom la ñuy dundee. te mbayteef képp lay doon. te mbayteef képp lay doon. fi nga jaar ba am suuna. su nga jaar ba am suuna. ceeb bi ngay gis nii. ceeb bi ngay gis nii. foofu la borom jaar. foofu la borom jaar. ba am ko. ba xam ko. kon nag man maa bind. kon nag man borom bi tabaaraka wa taala maa bind. àddina àddina. dund bii nag ñuy bay. dund bii nag ñuy bay. moo xam sunu la wala ceeb la wala basi la. moo xam sunu la wala ceeb la wala basi la. wala mu de leneen. wala mu de leneen. moom laa def ne moo di dundal àddina. moom laa def ne moo di dundal àddina. yi ma bind nag. yi ma bind nag. moom laa ci gën a fonk. moom laa ci gën a fonk. ku ci yàq dara. ku ci yàq dara. ah. ah. suma caawa ci yow kat. sama caawa ci yow kat. ak suma garanti ci yow. sama garanti ci yow. jeex na de. jeex na de. xanaa yaa da garanti sa bopp. xanaa yaa da garanti léegi. léegi. dafa amoon ma ku daan waxtaanee mu ne. mu ne dafa am ku daan waxtaanee mu ne. borom bi tabaaraka wa taala ba mu bindee dugub. borom bi tabaaraka wa taala ba mu bindee dugub. dafa woote laajte kan moo mën a nekk kan lañ koy dénk dafa laaj laajte kan lañ koy dénk mu xaw a li ñuy wax nii mu xaw a ne doog li ñuy wax nii kan lañuy dénk dund bi kan lañuy dénk dund bi ba mu xaar ko ba mu xaar ko ñi tontu kenn ku ne tontu ñi tontu kenn ku nekk tontu mu ne ko yow mënuloo ko mu ne ko yow mënuloo ko ñax tontu ñax tontu mu ne ko borom bi mu ne moom mën naay wattu dund borom ñax tontu ne moom mën naay wattu dund boo béyee mboq mën na koy wattu boo béyee mboq mën na koy wattu bu dee basi bu dee basi bu dee ceeb bu dee ceeb suuna bu dee suuna moom ñax moom ñax mu ne moom mën naay wattu mu ne moom mën naay wattu mën na koy wattu mu ne moom mën na koy wattu koo ko dénk koo ko dénk dana ko wattu dana ko wattu yàlla ne yàlla ne ko noo koy wattoo noo koy wattoo mu ne mu ne balaa nit ay xam ceeb. balaa nit ay xam ceeb. balaa nit ay xam dugub. balaa nit ay xam dugub. balaa nit ay xam mboq. balaa nit ay xam mboq. fa ma fa ma ray jakk. fa ma ray jakk. waaw bun ma ma rayut. doo am dugub. doo am mukk dugub. mu ne ko nag yow nag. mu ne ko yow nag. yow lañ koy dénk dénk nañ la ko. yow lañ koy dénk dénk nañ la ko. moo tax foo leen gis rek. moo tax foo leen gis rek. foo gisu na rek. foo gisu na rek. ñax dikk taxaw. ñax dikk taxaw. foo ji mboq rek ji mboq rek. ñax dikk taxaw ñax dikk taxaw. ji ceeb rek. foo ji ceeb rek. ñax dikk taxaw. ñax dikk taxaw. ak yeneen yi nga xamoon yëpp. ak yeneen yi nga xamoon yëpp. ak ñax yi ñuy àndal. ak ñax yi ñuy àndal. ñoom daal ñooy saxandoor. ñoom daal ñooy saxandoor. benn nga jëlee fi ñax mi am. am am mboq mi. benn nga <laughs> dund bi. benn nga jëlee fi ñax mi am dund bi. wala nga bàyyi ko fi rek doo am dund bi. wala nga bàyyi ko fi rek doo am dund bi. booba lañ ko ko dénk. booba lañ ko ko dénk وعن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم نبات على وجه الأرض maanaam loola mag ñi jàngale lañ ci jublu mu ne loola mag ñi jàngale lañ ci jublu doo fi nekk naan loolu lu wét la wala lu wétut doo fi nekk naan loolu lu wét la wala lu wétut da ngay seet lan nga ciy déggee da ngay seet lan nga ciy déggee li ci déggee mooy sa tool bi boo ko bayee li nga ci déggee mooy sa tool bi boo ko bayee da nga góob da nga góob boo ko bayut boo ko bayut da nga góob da nga góob loolu xamuñu naan hadis bi dañeef la loolu xamuñu naan hadis bi dañeef la ñàkkaa dañeef ñàkkaa dañeef moom mu nii moom daal mu ngi nii sa sa tool nga soo bayee daal am dugub soo ko bayee doo sëy mu ne amalaat di sëy amalaat di ñàkk a sëy loolu yoon ma hadisoon yi seen yoon nekku ci loolu ma hadisoon yi seen yoon nekku ci xanaa kay mu tukkal li moon yi lañ xukkamaaw yi lañuy wax xanaa kay xukkamaaw yi lañuy wax xisa yi yëpp noonu la mel mu ne xisa yëpp noonu la mel dafa am lu may jàngale loo xam ne dafa am lu may jàngale loo xam ne dang dañ ko cee jëlee dañ ko cee jëlee jërëjëf hmm. ñu naan sëy la wala dayeeb la jërëjëf ñu naan sëy la wala dayeeb la moom daal mu ngi nii toolu sunu baa ngi ndale moom daal mu ngi nii toolu sunu baa ngi ndale yaa ko moom yaa ko moom hmm. ba nga ba ba suuna si saxee. ba suuna si saxee. la ñax ma sax. la ñax ma sax. boo reyee ñax mi. boo ñax mi. da nga góob. da góob. boo ko rayut. boo ko rayut. doo góob. doo góob. waaw su ko defee nag ñi ñu ko doon jàngal jàngale ñu ko noonu. su ko defee ñi ñu jàngal jàngale ko noonu. yéen tamit sallallahu alayhi wa na ak akramu nabaati ala wajhil ardi al burru. mu ne yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam nee na akramu nabaati ardi al burru. wa zalika anna allaha taala wa zalika anna allaha taala istahmala fihi ahla samai wal ardi istahmala fihi ahla samai wal ardi mu ne gàncax gi ñuy wax burru mu ne gàncax gi ñuy wax burru mu mu nekk ne kenn ci dund yi mu ne kenn ci dund yi eh, ak yi mu bokk doon dund yëpp ak yi mu bokk doon dund yëpp yonente bi nee na mooy gàncax gi nga xam ne gii nii moom la yàlla gën a teral ci kaw suuf si yonente bi mu ne mooy gàncax gi nga xam ne moom la yàlla gën a teral ci kaw suuf si mooy yi nga xam ne boo ko bayee dund ci mooy yi nga xam ne boo ko bayee dund ci dund moom dund moom dund moom yàlla da cee def kiimaan gu rëy rëy dund moom yàlla da cee def kiimaan gu rëy rëy borom usine ba rëy ba rëy de borom usine ba usine ba rëy na de de dëgg dëgg dëgg la def rëy dëgg dëgg la def waaye ba léegi mën na ko doon mën na ko doon lu ne nag man lu ne mu ngi koy liggéey mu ne usine ba lu ne mu ngi koy liggéey waaye dund waaye ba léegi mën na ko doon liggéey dund de dund moom dund moom moom gàncax gu ñuy dundee lay doon moom gàncax gu ñuy dundee lay doon wala daaba ji yàlla ay dundal wala daaba ji yàlla ay dundal boo ko soxlaa a ko boo rey ko moom daa mënoo fexe ba génne ci loxol yàlla moom daa mënoo fexe ba génne ci loxol yàlla moom yaar rek lay doon moom yaar yi gàncax goo xam ne dañ dañ koy bay gàncax goo xam ne dañ koy bay jëlee ca dund jëlee ca dund wala daaba joo xam ne ji dañ ko yàlla koy bind wala daxa bi ju xam ne yàllaa koy bind nga ray ko jëlee ci dund nga ray ko jëlee ci dund <laughs> mu jeex de ba léegi de moom ba léegi de moom borom usine yu rëy yi usine yu rëy yi ñu wax ne mën nañoo dundal àdduna bi ñu wax ne mën nañoo dundal àdduna bi ñu wax ko man yombagul leen ñu wax ko yombagul leen de gannaaw kenn koy def gannaaw kenn koy def ki da tawal ndox mi ki da tawal ndox mi wala ki da dawal dawal géej gi wala ki da dawal géej gi Eh, walla kede indi roho ci daaba walla kede andi roho daaba moom daal jëmm laay doon ju yàlla y dundal ci roho moom daal jëmm laay doon ju yàlla da dundal ci roho walla gàncax laay doon koo xam ne yàlla koy dundal ci tawam bi walla gàncax laay doon ko xam ne yàlla koy dundal ci tawam bi moo koy dundal ci ndoxam mi moo koy dundal ci ndoxam mi dundal ci moo koy dundal ci ndoxam mi. moo tax mu ne gàncax gi xam ne ni moom yàlla gën a fonk ci kaw suuf si. moo tax mu ne gàncax gi yàlla gën a fonk ci kaw suuf si. mooy burru. mooy burru. waaye burru yóbbaale na. waaye burru yóbbaale na. mboolem xeeti dund yi. mboolem xeeti dund yi. mu ne borom bi tabaaraka wa taala. mu ne borom bi tabaaraka wa taala. liggéeyloo na ci waa asamaan. liggéeyloo na ci waa asamaan. liggéeyloo ci waa suuf. liggéeyloo ci waa suuf. nga door a xam kilo pepp. nga door a xam kilo pepp. <laughs> bala nga am kilo pepp. bala nga am kilo pepp. yàlla dana liggéeyloo waa asamaan. yàlla dana liggéeyloo waa asamaan. mu dënnu dënnu dënnu ba nga yaakaar ne asamaan si day daanu. mu dënnu dënnu dënnu ba nga yaakaar ne asamaan si day daanu. mu melaxa melaxa ba nga yaakaar ne melax gi dana agsi ci yow. mu melaxa melax ba nga yaakaar ne melax gi dana agsi ci yow. baykat yi jóg. baykat yi jóg. xotti suuf si. xotti suuf si. bu loolu xamee. bu loolu xamee. ngay doon am benn kilo suuna. ngay benn kilo bu benn burru. benn kilo burru. benn kilo mboq. benn kilo mboq. seen maam Alaaji Alioune Faat ni ko daan waxee. mu ne seen maam Alaaji Alioune Faat mu ko daan waxee. bu taalibe yi giiroo ba dugub ci xappu. bu taalibe yi ba dugub ci xappu. mu ne xappu dugub mën naa wattandeku. mu ne xappu dugub mën naa wattandeku. bala ngaa xam dugub. bala ngaa xam dugub. asamaan dana yëngu. asamaan dana yëngu. suuf xar. suuf xar. <laughs> noonu la ko daan waxee. noonu la ko daan waxee. waaw xapp dugub. xapp dugub. mën naa wattandeku. mën naa wattandeku. bala ngaa xam dugub. bala ngaa xam dugub. asamaan dana yëngu. asamaan dana yëngu. suuf xar. suuf xar. waaw su ko defee. xoolal nag ba tey rek mu ne xoolal nag ba tey rek kañ nga gisagoo nga dugub joo xam ne xam nga ko te fekk suuf xaruñ suuf jëkkam ndax gisagoo nga dugub jox xam ne xam nga ko te xaruñ suuf jëkkam déet gisagoo nga ne nawet ba wàcc te kenn déggul dënnu gis na ko nga nawet bu wàcc te kenn déggul dënnu kenn gisul taw kenn gisul taw kenn gisul ngelaw kenn gisul ngelaw mun seen naa loolu laa mu ne mu ne giiroo mën naay wattandeku mu ne giiroo mën naay wattandeku ndax bala ngay dugub ji nga xapp nii ndax dugub ji nga xapp nii balaa nga koy xam balaa nga koy xam asamaan yëngu. yëngu. suuf xar. xar. moom du ko xamale foofu yàq dugub. moom du ko xamale foofu yàq dugub. yàq dugub du ko xamale foofu de. yàq dugub du ko xamale foofu de moom. mu ne léegi dugub ji nga xam ne moom nga tuur tey. mu ne dugub ji nga xam ne moom nga tuur tey. tëgg ba doon tëggoon sémmiñ wañ doon wañ doon eh, tool bi. tëgg ba doon tëgg sémmiñ wañ doon rujee tool bi. yàq nga liggéeyam. yàq nga liggéeyam. mu ne tëgg ba tëggoon daba bi nga xam ne bii nii moom lañ doon jiyee tool bi mu ne tëgg ba nga xam ne moo tëggoon daba bi ñu doon jiyee tool bi yàq nga liggéeyam yàq nga liggéeyam mu ne ki ko doon bojji mu ne ki ko doon bojji ak ki ko doon wal ak ki ko doon wal mu ne yàq nga liggéeyam mu ne yàq nga liggéeyam mu ne ki góore woon ko toggee mu ne ki góore woon matt ko toggee yàq nga liggéeyam yàq nga doon togg ki ko nga liggéeyam yàq nga da ko daan wax wax ba ñun ñëpp ñëpp mokkal ko mu ne loolu ko daan wax wax ba ñun ñëpp ñu mokkal ko ba boo xappee dugub rek ba boo xappee dugub rek da xam ne asamaan yëngu da xam ne asamaan yëngu loo xam ne asamaan yëngu na suuf xar loo xam ne asamaan yëngu na suuf xar moom nga xappu moom nga xappu da ko daan wax ba gone yi mokkal ko tëgg ba tëgg sémmiñ wa tëgg ba doon tëgg sémmiñ wa ba tëggoon hileer ba ak ba tëggoon hileer ba ak ka taxani woon matt ma ak ka taxani woon matt ma ak ka rootoon ndox ma ak ka rootoon ndox ma ak ki xendi woon ci waañ wa ak ki xendi woon ci waañ wa ñi ñëpp boo xëppee dugub ñi ñëpp boo xëppee dugub yàq nga yàq nga seen liggéey bi daana nettali koo xam ne mu ne daana nettali ko xam ne sëriñ boo xam ne bu ñu wàccee xaan dugub ci buntu këram sëriñ boo xam ne bu ñu wàccee xaan dugub ci buntu këram da ko daan nettali waaye ñoom gisoon nañ moom mu da ko def mu ne da ko daan nettali waaye ñoom nag gisoon nañ mu da ko def hmm? tomb tomb yooyu dafa toq noona tomb tomb yooyu dafa toq noona bu ñu wàccee dugub ji bala ñaa toog bu ñu wàccee dugub ji balaa ñee toog dañ demaat foofa dañ demaat foofa da ko for pepp pepp par pepp da ko for pepp par pepp waaw loolu gis nañ mu ne loolu gis nañ ko fii ba tàyyi aji wàccee dugub wàccee dugub aji wàccee dugub wàccee dugub ñu woo gune yi ñu for gune yi ne leen kaa leen for pepp mi ñu ne ko for pepp par pepp ñu par pepp ba pare ba pare nag mu doon leen wàccee ba pare nag mu doon leen wàccee def na ko ba ne def na ko ba tàyyi dugub dugub jar naay wattandeku jar naay wattandeku loo xam ne nga cee jot lu xam ne balaa nga cee jot asamaan yëngu asamaan yëngu suuf xar suuf xar mbokk yi fii mbokk yi sëriñ mu ne fii laa yem. li ngeen bindoon itam fii la yem. ne li mu bindoon itam li ma bëggoon itam nettali naa ko. li mu bëggoon a itam nettali na ko. su ma dara dara dara. su lu mooy rek seen maam. lu mooy rek kàddug seen maam. dugub. dugub mën naay wattandeku de mën de lu xam ne balaa jot lu xam ne balaa nga jot asamaan yëngu asamaan yëngu suuf xar suuf xar dugub dugub ëpp naa yàq de. ëpp naa yàq de. loo xam ne ka doon ruuj. loo dugub la bëggoon. dugub la bëggoon. ka doon bay. ka doon bay. dugub la bëggoon. dugub la bëggoon. ka doon taxan. ka doon taxan. lekk dugub la bëggoon. lekk dugub la bëggoon. ka doon togg. ka doon dugub la bëggoon. lekk dugub loolu nag moom nga xapp. loolu nag moom nga xapp. <laughs> lépp jàngale na ko. mooy lépp jàngale na ko. moo tax fa eh, tabaarakallaa jotaay bi daal moom toujours. mu ne jotaay bi daal moom rek mooy. liñ xam ci moom ñu xamal leen ko. liñ cey namm daal mooy liñ xam ci moom ñu xamal leen ko. fonkoon na dugub lool. fonkoon na dugub lool. fonkoon na dugub lool. fonkoon na dugub lool lool. danaan baye baye baye ba nga xam ne danaan baye baye ba nga xam ne nga yaakaar ne kii amatul soxla ci dugub nga yaakaar ne kii amatul soxla ci dugub doo yëg lu mooy ndeke mu ngay jënd lu dugub doo yëg lu mooy ndeke mu dañ daan wax ne taalibe yi wax ne soo fi amulee ñetti xat soo fi amulee ñetti at li nga bay doo ci lekk li nga bay doo ci lekk li nga bay doo ci lekk li nga bay doo ci lekk loolu lañ daan wax mu ne loolu lañ daan wax moom am dugub. moom am dugub. daaw ko tere daaw ko tere jënd dugub. daaw ko tere jënd dugub. yàlla sax yombalal ñu dugub. yéen a yàlla yombalal ñu dugub. yéen nañ ko xormaal. yéen nañ ko xormaal. yéen ko bëgg. yéen nañ ko nañ ko teral. tool yi tam yéen nañ ci tool yi yéen nañ ci am barke. liñ cee liggéey yëpp. liñ cee liggéey yëpp. bu tuutee bu bu tuutee bu néewee. yéen nañ ci jëlee lu faj suñu soxla yi. tool yi bu tuutee. tuutee bu bëree. bu tuutee bu bëree. dinañ ci jëlee lu faj suñu soxla yi. yàlla bu mu yàqu ci suñuy loxo. malaaka yooyu li ñuy liggéey ci mbay mi. malaaka yooyu li ñuy liggéey ci mbay mi. njëriñam yal na agsi ci ñun. njëriñam yal ci ñun. yàlla sàmm ñu wattuñu yàlla sàmm ñu wattuñu barkeel ñu suturaal ñu barkeel ñu suturaal ñu mm, jàppandalal ñu jàppandalal ñu borom bi tabaraka wa taala kenn xamul fan lay denc xam-xam borom bi tabaraka wa taala kenn xamul a lay denc xam-xam nga Maodo bi na gis nga Maodo bi tey mooy ñetteelu yoon tey mooy ñetteelu yoon ma bëgg koy waxtaanee mu bëgg koy waxtaanee waaye bu ma jógee rek waaye bu jógee rek téere boo xam ne bii ne ci laa da jëlee lu ma doy téere boo xam ne ci laa jëlee lu ko doy daf may të daf koy të ba bii moom dama xëy rek. bii moom dafa xëy rek. soxla ko gis ko. soxla ko gis ko. <laughs> ñetti at. ñett ñaari at passé na ma bëgg waxtaanee mbay. mu ne ñaari at passé na ma bëgg waxtaanee mbay. su ma demee ba bëgg koy waxtaanee day mel mel ni xamul benn hadis bu wax ci mbay. su demee bëgg waxtaanee day mel mel ni xamul benn hadis bu wax ci mbay. waaye keroog bi bi mu ko bëggee rek. booba laa laa ko gis. booba rek la ko gis. moom daal li ko li aji leen kitaabu daal duut caaxaan. moom daal li ko li aji leen kitaabu duut caaxaan. amul amul hudde. amul hudde. te bañ ko hudde amuñ ko woon. te bañ ko hudde amuñ ko woon. jërëjëf jërëjëf. te nag li ñuy waxtaanee rek. te li ñuy waxtaanee nag. dara rawu ci nag li ñuy def nii. dara rawu ci li ñuy def nii. lan la ñuy jëriñ. lan la ñuy jëriñ. bu mooyee njëriñ liñ ci xam. bu mooyee njëriñ liñ ci xam. waaw li ñuy waxtaanee dara gënu ci loolu. li ñuy waxtaanee dara gënu ci loolu. li ñuy def nii lan la ñuy jëriñ def nii lan la ñuy jëriñ bu mooyee bu mooyee njëriñ liñ ci xamal suñu bopp ni liñ ci xamal suñu bopp waaw jëriñ de mooy li mu jëriñ de mooy dugub daal moom balaa nga koy xam dugub daal moom balaa nga koy xam asamaan yëngu asamaan yëngu suuf xar suuf xar <laughs> loolu rek doy na tem mu ne loolu rek doy na tem mm-hmm.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 ma ñu ñaanal ko yàlla yàlla sàmmal ko zaakiraam. mu ñu ñaanal ko yàlla sàmmal ko zaakiraam. dama ko daan wax. mu ne daf ko daan wax. moom rek la daan wax moom rek la daan wax itam. am na ñoo xam ne xamuñ li ma wax. am na ñoo xam ne xamuñ li mu wax. déggee ko neneen. déggee ko neneen. foog ne zaakira. foog ne zaakira. boo ko waxee ci nit. boo ko waxee ci nit. da nga koy tuutil. da koy tuutil. leeraloon naa ko fi am xat. mu ne leeraloon na ko fi am xat. fan yi ci gannaaw. fan yi ci gannaaw. Mm, yàlla dafa def. yàlla dafa def. ma gis loo xam ne moom mii moo ko bind. mu gis loo xam ne sëriñ bii moo ko bind. am boroom xam-xam bu mu doon wax. am borom xam-xam bu mu doon wax. boo xam ne. boo xam ne. mën nañuy wax ne. mën ñuy wax ne. yàlla xamal na ko lu lépp waaye xamal na ko lu bare bare bare bari tam takk ko. yàlla xamal na ko lu bare bare bari tam takk ko. mu gën cee takk alquran. mu gën cee takk alquran. sëñ Muxtaar Xuli bu cooyaan la. sëñ Muxtaar la. mu gën cee takk alquran. mu gën cee takk alquran. ba nit ñi foog ne alquran rek la xam. ba nit ñi foog ne alquran rek xam. sëriñ bi génnee. sëriñ bi génnee. yeneen yum xam. yeneen yum xam. yoo xam ne ràññeeku na ca lool. yoo xam ne ràññeeku na ca lool. waaye sama borom. waaye sama borom. daf ko daf ko daf ko feeñalal alquran. daf ko feeñalal alquran. sëriñ bi nag. sëriñ bi nag. bind ci moom. bind ci moom. ndax téere bu sukkandiku téere al kaamil bu mu sukkandiku. ndax kaamil bu mu sukkandiku. boo xam ne. boo xam ne. sëñ Moxtaar Xuli. sañ Moxtaar Xuli. moo ko bindaloon bàyyam moom bii. moo ko bindaloon bàyyam moom sëriñ bii. ca la waxee li mu wax noonu. ca la waxee li mu wax noonu. ne sama borom xamaloon na ko lu bëree bëri. sama na ko lu bëree bëri. mu am ci ab digg. mu am ci ab digg. bu mu wax ne. bu mu wax ne. sama borom defoon na moom sëñ Muxtaar Xuli sama borom defoon na moom sëñ Muxtaar Xuli mu xam borom xam-xam yu bari te jaxasoo ak ñoom xam borom xam yu bari te jaxasoo ak ñoom xam kaang yu bëri jaxasoo ak ñoom xam kaang yu bëri te jaxasoo ñoom xam nitu nitu démb yu bari te te xamee ko ci xam gu wér xam nitu démb yu bari te xamee ko ci xam gu wér nit ñi buñ jaaxlee nit ñi buñ jaaxlee waan nara wutee ci xam-xam nara wutee ci xam-xam wax sëriñ bi lay nettali nag wax sëriñ bi lay nettali mu ne buñ jaaxle waan wutee ci xam-xam mu ne buñ jaaxle waan wutee ci xam-xam suñ muxtaar huli suñ muxtaar huli delluwaay la daan doon ci ñoom delluwaay la daan doon ci ñoom lu mu leen wax lu mu leen wax loolaa sax loolaa sax moom sëriñ bi nag mu bind moom sëriñ bi nag mu bind mu bind ne mu bind ne koo xam ne kii ma ma ne man li may wax ni sama wax la ma ne koo xam ne kii mu ne ko xam ne kii foogoon na ne foogoon na ne zaakira zaakira man maa ko sos moom moo ko sos na déglu lu sëriñ bi wax na déglu lu sëriñ bi wax sëriñ bi daf ne. sëriñ bi daf ne. aha nathu. aha nathu. ala zalika. ala zalika. zakiratuhu. zakiratuhu. al amina. al amina. kayit bi mu ngi fi. mu ne kayit bi mu ngi fi. mu ngi ci sama loxo. mu ngi ci loxo. mu ngi ci loxo sëriñ bi. mu ngi ci loxo sëriñ bi. ma woo Modou Habib mii. mu woo Modou Habib mii. ak Jim Ndiaye. ak Jim Ndiaye. ak Abdoulaye Ndaw. ak Abdoulaye Ndaw wan leen ko. mu wan leen ko. ba ma leen koy wan kayit bi àggagul ci sëriñ bi. ba ma leen koy wan kayit bi àggagul ci sëriñ bi. këyit bi barki démb la àgg ci sëriñ bi këyit barki démb la àgg ci sëriñ bi mu wan ko loolu fekk junjoon naa ko ko rek waaye wanagu ko ko mu wan ko ko fekk junjoon na ko waaye wan guut ko ko wan ndax daf ci amoon nusxa te gisatu nusxa bi ndax daf ci amoon nusxa te gisatu nusxa bi man maa ngi yore nusxa bi moom mu ngi yore nusxa bi mu wan ko ko mu wan ko ko wax ko ne ko wax ko ne ko njaboot gi dee njaboot gi dee muy Mouhamadou Habib muy Mouhamadou Habib Jim Ndiaye Jim Ndiaye Ablaye Ablaye Ndaw Ablaye Ndaw woo naa leen woo naa leen wan leen lii wan leen lii mu ne ma lii de ku ko gis. mu ne ko lii de ku ko gis. ci ngay xamee li nga may ñaanul lum da. ci ngay xamee li nga may ñaanul lum da. ساكنة ساكنة آنة ساكنة ثمينة waaw waaw ba ba pare dinaa wax nit ñi ah. waaw dama dama dama joxe njàng bu li laa bëggoon mu leer. li la bëggoon mu leer. mooy zaakira. mooy zaakira li may ñaan li ñaan yàlla sàmmal ko sëriñ bi. mooy li may ñaan yàlla sàmmal ko sëriñ bi. bi fi nekkee ba tey. bi fi nekkee ba tey. xam nga am na digg yoo xam ne dafay wax ne. man am na digg yoo xam ne dafay wax ne. góor gi daf ko daan wax. góor gi daf ko daan wax. ba ñu gune yi mokkal ko. ba gune yi mokkal ko. gune yooyee. gune yooyee. ñi ñu jàppoon ne mokkal nañ ko. ñu jàppoon ne mokkal nañ ko. tey boo jëlee. tey boo jëlee. juróom-ñeent fukki nit ci téeméer téeméer bu ne nga jël juróom fukki juróom-ñeent fukki nit. téeméer bu ne nga jël juróom-ñeent fukki nit. ñi ko mokkaloon démb. ñi ko mokkaloon démb. mokkalatuñ ko tey. mokkalatuñ ko tey. juróom-ñeent fukki ak lu topp. juróom-ñeent fukki ak lu topp. la ca des ci juróom téeméer ba. la ca des ci téeméer ba. yàlla def moom mu bokk ci. yàlla def moom mu bokk ci. yàlla daf koy sàmmal saakiraam. yàlla daf koy sàmmal saakiraam. la mokkaloon démb. ba tax la mokkaloon démb. ba tey mu mokkal ko. ba tey mu mokkal ko. man loolu laa de ñaanul sëriñ bi. man moom loolu laa ñaanul sëriñ bi. sëriñ bi moo ko bind de aanatu zakiratuhu al amina aanatu ala zalika zakiratuhu al amina aanatu ala zalika zakiratuhu al amina ji nga zakira zakira bu dee am njëriñ bu dee am njëriñ dafay nekk mu nekk amina dafay nekk amina li nga ko dénk li nga ko dénk saa soo ko soxlaa saa soo ko soxlaa na nga ko dénkee woon na nga ko ko dénkee woon noonu la ko koy joxe noonu la koy joxee lu man loolu laa di ñaanal sëriñ bi moom loolu laa ñaanal sëriñ bi sëriñ mu ne ñu leen ko ñaanal yi ñëpp ñu jàng fatiha ñu jàng ko sama borom tabaraka wa taala ñaanal ko sama borom tabaraka wa taala ko zakiraam sàmmal ko zakiraam waxoon naa fi keroog ne baxee leen mu sama baatab arab bi mu nañ ko keroog nañ ko baxee baatab arabam bi ma baat bi mu ne ñu ko baat bi bàyyee leen ma ko mu ñu bàyyee ko ko bu dul maa ngeen yëg ni góor sëriñ bi bind na ko mu ne bu dul maa ngeen yëg sëriñ na ko ñaan. sëriñam. sëriñam. moo ko ñaanaloon ki mu doon waxtaanee ci moom. moo ko ñaanaloon ki mu doon waxtaanee ci moom. mu jàng baat yooyu. mu ne mu jàng baat yooyu. jublu ci ñaan. jublu ci ñaan. moom mu dugg ci. moom mu dugg ci. keneen dugg ci. keneen dugg ci. allahumma barik Cheikh El Hadj Mouhamed. waxtaan naa maa ko. waxtaan bi ñu ngi ab baax yi. ab baax yi ab baax yi bi laa yomb a jaamu. allahumma barik Cheikh El Hadj Mouhamed. waxtaan naa maa ko. علمني أرضاني وأرضاني أرضاني إلى يوم القيامة اللهم أرضاني سيف أرضاني علمني أرضاني أرضاني أرضاني إلى يوم القيامة اللهم أجز الصواب عني فاطمة من ذنبه وأوسع درجته وأعلي مقامه في علمه وأرضه في نفسه وأهله وأولاده وأصحابه وإخوانه جميع من أصل إليه ولا مرة ضروري قدره وأوسع درجته وأعلي مقامه وأرضه بنفسه وأهله وأولاده وأصحابه وإخوانه إني من أحسن إليك ومرة لم أجد ثوابني بعد وأوسع درجته وأعلي مقامه وأرضه بنفسه وأهله وأولاده وأصحابه وإخوانه إني من أحسن إليك مرة واحدة اللهم صل على سيدنا محمد وقاتل لما سبق ناصر الحق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 ñu ñu nekk ci kaw bi xam bi yokku na. waaw xam bi yokku na. xam bi yokku na. da ngeen gis loolu ñu nekk ci xam bi. ah. jotoon naa wax Moussa mii ma ne. dinaa wax Moussa ma ne ko. kenn mënu kenn mënu ci def ci aajo bi quoi. waaw loolu moo ko jàngal ña ñaaral ko ko. waaw balaa ma daan seet alaaka ñu fàtte. moom moo ko jàngal. dañu dem ñu nekk ñu fàtte. balaa ma agir saa maa ngi fàtte ñu jël. moo ko ñaan moo tax kenn mënu ko jël.

بهذا المحضر وتقوى وصل على سيدنا